Mohamed Mokhtar Cissé Bir mi nenn lag la demee c'est simple avant épreuve bi di tambali surveillance yi dugg nañ ci bir classe bi laaj ñu suñ téléphone ñu génnee suñ téléphone yëpp tek ci kanam ñu teg suñ téléphone yëpp ba ci kanam ba paré moom mu dugg ci laaj ci ana sen téléphone kan dugg ci? président jury bi dugg ci ñu jël téléphone yëpp tek ci kanam mu laaj ñu téléphone ñu génnee téléphone yi jox ko mu ne suñ paré dañ leen ko jox mu nes tuut mu ñëwaat ñu jox mu ñëwaat indi benn fooye ne indi leen seen kii yi seen téléphone yi ñu jox leen ko indi len ki indi len ñu ñu signé ñen signé fi suñu paré lool moy wone ni yéen a moom téléphone ñu ñew ñu joxe lool ñu ñu joxe loolu ñu ñu jàpp ne suñ paree ñun ñu signé woon dañuy suñu paré dañuy rendre la suñu téléphone ñu paré bim bi bi mu kiiwee noonu ba paré dafa jël yépp ne ne yéen ñi nga xam ne jot ngeen signé ñëpp ñi nga baax ñi nga xam dañu fi fee sen téléphone yépp jóg leen ngeen dem loolu je sais loolu am na waaw non loolu je sais loolu amna waye ñun ñi amul ñun ñi kuñ ci kuñ ci euh, indi fi nga dëkk ci côté yi ñun ñii ñëpp képp ku ciy ñëw da ngay jógee ba Medina Baye am na ñoo xamante ne ginnaaw Medina Baye lañ jógee ñun ñëpp ñëw fii léegi yow soo ñibbi ban jakarta nga mën a woo ki la indi woon ki la woon dong nga mën a woo mu ñëw yóbbuwaat xam ngeen fii diggante bi nu mu soree ñun ñii ñëpp ku gën a tuuti li nga fay 1000 francs man tey damaa fay journée bi yëpp waa ji 8000 francs laa ko fay 4 jours laa ko fay 8000 francs élève fu mu jëlee 4000 francs yu mu fay kon nag léegi lii dañ cee war a mën a taxaw président jury bi rawante ne sax lii sax première fois la waroon nañu avertir booy chance nit ki nga may ko beneen yoon chance am en tout cas ñu lii lañ amoon luñ ci wax su dee mën nañoo dimbale ñu duggaat ñu duggaat te ñu xam ne nag ñun ñoo nekk dëgg la mën nañoo am ne dañoo am dañoo tey mën naa am dañoo def erreur waaye beneen yoon suba su ko keneen defaate ñu ñu kii ko waaye nag comme tey nag premier jour la te en nag gis ne ñoom def defaan nañ ñu xam ne lii élèves ñoo ko tey daaw defoon nañ ko Ibrahima Diouf daaw Ibrahima Diouf defoon nañ ko dañu yóbbu suñu téléphone yi président jury bi nañu jël seen téléphone yi yëpp ngeen teg ko ci kanam ñu jël yëpp teg ci kanam ba pare bàyyi noonu bañ pare dañu jëla suñ téléphone ñu ñun ñëpp ñu def suñ poos loolu kon te nit ki su amoon intention tricher ba ko laajee téléphone am du la ko jox wala ngeen ne ko jëlee seen téléphone ngeen teg ko ci kanam ñu jël ko teg ko ci kanam waaye ñun ñëpp kenn denc ci téléphone ñun ñëpp dañoo jël suñu téléphone yóbbu ci kanam mu récupéré téléphone yóbbu waaw situation yi du ko comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp ñun nga xamante ni ñoo doon defee fii si nouveau euh, lycée ñu am suñu mbokki élèves yoo xamante ni dañ leen génnee si suba gi suñ première matière dañ leen génnee nag suñu président si li mu wax mooy que ne ñoom dafa fekk si ñoom ay téléphone léegi nag si loolu lañu bëgg a leeral lu ndaw ndax ñin ñu si ëpp si ñin ay arabisants lañ jógee ko si gox yu sori tey ñin képp ku fi ñëw rek dafa am condition yoo def ba ñëw condition yooyu nag moo la poussé ba nga jël sa téléphone bu ndaw indiwaale ko pour man di woote mën a déggante lu la delloo ji tey ñun ñii ñëpp ku si na mën a dox dem foo dëkk su subaa doo xëy ñëw def si excel ah, nit ki nag ah, ah, nit ki nag surtout nga nekk Sénégal yi nga ne jàng nga ba yegg si yenn niveau yi sa rakk wala sa doom nekk si yenn kii yi war nga ko mën a comprendre war nga ko mën a accueillir dimbale ko ba mu yegg fu nga yegg mais présidentielle bi yow koo xamante ni dañ na téléphone suñ koy aaye dafa am cause yu tax ñu koy aaye cause bi mooy bu si sàcc mais téléphone bu ndaw buñ fay wala téléphone buñ fay teg fi kan moo si sàcc même su fekkee règlement la gis nga xuquuqi ya doomu aadama ak nit ki nekk insaniyatu doomu aadama warul may ngay ngay dee nit ki première fois yàlla suñu borom bi sax dañ koy tooñ di ko jéggal mu ñuy jéggal doomu aadama nga koy tooñ mu mën a tooñ mëntu ñàkk erreur mëntu ñàkk mais nit ki si boppam su defee erreur benn yoon sax si l'islam sax l'islam du ko reconnaître erreur boobu dalay jox du nga xamante mooy sens li ñuy wax autorité nekk ndaw yoo xamante ni dañoo nekk si yoon di dul ñëpp tey ñu ngi fi génnee ñii kenn ku nekk sa rakk leen génne wala sa mag wala sa xarit tey ñun neexul ñi ñuy génnee si ñu ñi ñuy dugg di def mais tey mënuñ si dara tey yow mii nga xamante ni yaa ngi toog wallaay lazim képp ku toog si salle yaa ngi dund loo xamante ni lu nga bind sax xamoo ko parce que lu mooy ku dend ku nga dend wala ku nga bokk école nga xam lu mu sacrifier daj ba yegg ci fii si bëgg xam-xam ak niveau bu nekk si moom ñu génne ko si yoo xamante ni mënoon leen ko taxalee mu jaar tey présidentielle bi ñu mu génnee man naa waat ne am na koo xamante ni mën na si nekk première santé